salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte ànd ak yéen xam ngeen ne euh, jamono ji nag ñi ngi euh, ci atum jeextaluk atum mille 2020 di dugg nag atum deux mille vingt 2021 ñu ñaan nag euh, yàlla rek ñu egg ci at mi ak jàmm ba tax na rek ñu jagle leen plateau bu mel ni lee ngir jëm ci atum 2021 ma koy ànd ak nag sama jigéen soxna bu Bousso ma bàyyi la nga nuyoog ñi lay topp ci 24actu point com jërëjëf Ousseynou maa ngi lay fay di am mbégte bu baax a baax di feggoog yow plateau bi comme ni nga ko waxee rek plateau spécial la ñu daal di nar a jeexal nag en beauté li nga mu euh, euh, yi ndax ay ne euh, jot nañu ko dund na leen soxna Maguette Bousso. Ousseynou naqari lool nañ ko wax rek te dee at mi neexul dara ndax te économie bi dee na lu mel ne euh, mbas mi bi mu duggee gis nga lu bëri dañoo daal di changé tey jii ni 31 bu ñu mësaan a fekk dañ daan gis bois di ni mu daan feesee ñëpp daal di dem dëkk bi la pétale di xale yi di def ambiance def lu nekk mais gis nga tey dara doxul mm-hmm. artistes yi nañ ko bu baax a baax bu ko waxee bu ñu ko waxul mm-hmm. moom daal métti loolu li nga ko waxee sànq tamit ñàkk nañ tamit ay kilifa muy mm-hmm. kilifa diine homme politicien yeeg yu ni mel lu bëree bëri daal dem nañ ci 2020 bi ba tey ji rek ci 31 bi gis nga ñàkk nañ ci sëriñ Abbas nekk xalifa nekkoon xalifa euh, maam Thierno moom tamit gis nga ko dafa daal di làqu mm-hmm. ñuy ñaanal suñu borom rek mu yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te ñu ngi koy tamit jaale njabootam gi yépp mm-hmm. rawatina tamit waa daaru man mën naa li ñu ci mën a jàpp daal mooy 2020 bi daal mm-hmm. bëri na ay naqar yoo xamante ni daal am na ci voilà Serigne Abbas nekkoon euh, xalifa bu daaru moxti ñu koy jaale njaboot gi di ko jaale mbooleem Sénégal euh, ndax Sénégal yépp ñoo ñàkk kilifa gu mel noonu euh, soxna Maguette mu mel ni tamit atum 2020 bu ñu koy jeexal wala sax at mu jot baaxoon nañ président de la république Macky Sall wala sax président président bu fi mën di nekk jàkkaarloog askan wi tey jii mu mel ni am na ay ponk yu bëri yu nga xam ne ñi ngi ko ciy xaar lu jëm ci deuxième mandat beeg ñetteelu mandat geeg euh, Covid 19 beeg deuxième vague baag ci aju mel na ni daal Sénégalais ñi ngi xaar président de la république ci euh, ponk yu bëri. Hmm. Ousseynou président li war a wax dafa bëri ndaxte am na question yu bëri yoo xamante ni nekk na ci askan bi te réponse bi moom rek moo ñu ko mën a jox comme ni nga ko ba tey yeyul yàbbi nit ñi rek ñooy nekk di wax immigration clandestine duñ ko bàyyi mm-hmm. ndaxte xale yi bu demee bay jël li nga xamante ni moo di tukki bu jaarul yoon bi mm-hmm. dafa mel ni comme si dañoo gedd te boo waxee ab dëkk mm-hmm. di nga wax li nga xamante moo di xaar nag ci mu jàppale leen ci wàllum emploi ak yu nu mel ndaxte yaakaar naa ne ku gis ne neneen ngi bu réew mi naatoon neex dinañ fi toog ndaxte dëgg yàlla li ngay jéggaani di dem ailleurs di ko fa defi bu ko sa réew manoon danga fi nañ ne ñu bëri dañoo génn seeni kër mhm. ndox mi yàq na kër yu bëree bëri te boobee ba tey rek ñi ngi xaar mhm. mu yee ci yàbbeeg yu ni mel Macky mhm. daal tey jii ñi ngi koy xaar daal ci ponk yu am solo daal ci ponk yu am solo gis nañu aussi ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne rek euh, Sénégal yi dund nañu ko rawatina nappkat yi nga xam ne euh, ñoo nekkee ci réewum senegal accord de pêche yi ñi nekkee ci gendar daanaka rek jàmbat nañ ci lu bëri gisoon nañ Bougane Gueye Dany demoon fa donc loolu tamit nekk beneen jafe bu nga xam ne buñ ci boolee yu baykat yi mbir yi dafay gën a compliqué ba léegi soxna Maguette jaaykatu gerte yi rek fi mm-hmm. nekk ni am nañ problème mm-hmm. ndaxte nee nañ seen gerte yi mi ngi ci àll bi amaguñ ba tey ay attestation pour mën koo jàllale mm-hmm. mu mel ne jafe-jafe yi ñuy dund jamono ji tar na lool voilà mu nekk lu tar lool euh, tey nag euh, atum 2020 di jeex ñuy euh, dugg ci atum 2021 comme ni ñu ko ubbee woon rek di ñaan suñu borom daal di ñu ci eggale ak jàmm fan ngay gën a xaar président de la république Macky Sall ngir mu teg fi loxoom en tant que journaliste boo doon def jàngat boobu ci ndaw ñi duma tàyyi ci di ko wax ndaxte am ab jeunesse boo ko boo ko waxee rek xam xale yee tax te tamit jamono ji xale yi jaaxle nañ lool ndaxte kenn ku nekk boo waxee boo dégloo li muy wax danaan dama bëgg a teral samay waajur te pour nga teral sa waajur il faut nga am ci loo jàpp te dañuy gis daf ñuy dig rek daf ñuy dig li nga xamante ni moo di ay emploi te ko gis benn yoon mu mel ne daal xale yi bu leen jàppale woon tuuti man moom foofu rek laa gën a xaar ak ci li nga xamante ni moo di mbas mi tamit ndax gis nañ ne économie baa ngi dee lu bëri mu ngi taxaw te tamit bu fekkee ne dafa topp rek rythme mbas mën na gën a compliqué na gën a compliqué ndax yaakaar naa ne réew yi nga xamante ni sax feeñoon nañ fa ñu ngi commencé waa di dooraat nank seen i activité mm-hmm, mm-hmm. lamb ji taxaw na musiciens yi taxaw pourquoi pas ñu vivre ak virus bi comme ni mu ko ah, waxee woon on apprend à vivre avec le ah, parce que boo gisee sax euh, football yi euh, yenn match yi ci biti réew euh, dañ koy def mais xëy na du am public wala dara pourquoi pas lamb ji ak yu mel noonu uh-huh, mais lamb ji bi mu waxee dañ koy def yukkuloo xam nga loolu jafe-jafe la ndaxte ki nga xamante moo di promoteur bi mënut a produire li nga xamante moo di lambam ba pare di ko def à yukkuloo soxla nga tamit nag public boo xamante dañ lay encouragé mu mel xarala yu bees yi am na ci lu bëri loo xam ne da ciy desandi bu fekkoon ne mat na dinañ ko mën a topp foofu bëri daal instant bi moom mi ngi am ci réew mi daal loo xamante ne nii war na cee teg tànkam bu baax a baax. voilà ci wàllu politique tamit ñu gis ni euh, daanaka gis nañu Idriss Seck dugg gi nga xam ni euh, dugg na ko ci nguurug Sénégal loolu tamit mel na ni mille vingt 2021 bi dina yëngu dialogue politique bi gis nañu tamit euh, ni ñu ko tàmbalee woon ak fi mu mujjee ba léegi. Mm-hmm. man Ousseynou foofu li ma fi gis mooy dafa mel ne Sénégal amatul opposant bu dëgër ah, ah oui ndaxte boo xoolee ñi nga xamante ni ñoom lañ daan gis au devant fi mu nekk nii hmm. Ousmane Sonko rek la ñuy gis hmm. moom rek mooy nekk di wax moom rek la gis mais ñu bëri dañuy mais Khalifa Sall Khalifa Sall moo ngi fi mais Khalifa jël na ko ay gàkkoog yooyu yëpp ñu ngi leen di wax naan kii nañu ak yooyu hmm. mais daal nañ xaar rek ba xam 2021 looy xew mais xam nga ni Idrissa Seck def jaaxal la ñu bëri est-ce que tamit mënuñu on sait jamais de. Hmm. jàpp ne ay waxtaan dafa am ci suuf. ah d'après photo yi ñuy publier daal ak yu ni mel. Hmm. gars daal ñu ngi koy jiiñ daal. voilà mu nekk lu am solo loolu nag mooy li nga xam ne rek tey dañu ci doon dellusiwaat ci wàllu ko politique bi ak yu ni mel xam ngeen ne atum deux mille 2021 atum 2020 bi loolee marqué na ko lool ci wàllu googu mu mel nag actualité people bi léeg-léeg ñi nga xam ne itam dañ lay topp ci vingt ak actu di topp actu du bi loolee tamit fës na ci lool ci fànn googee euh, soxna Maguette Bousso lan nga ñu ci mën a jukkil comme ni ñu koy waxee. ah di am mbégte tamit ci loolu ndaxte ah, people dafa dafa am solo ndaxte suñu suñu dëkk bi ñu nekk mu di Sénégal dafa bëri ay célébrité mm-hmm. te saa su nekk dañuy nekk di def ak yu ni mel moo tax tamit ñu koy fësal askan bi mm-hmm. ngir ñuy xam li nga xamante ni moo xew tamit daf ci daal di baax mm-hmm. loolooy tax rek 24 actu daal di appuyé bu baax a baax ci li nga xamante ni moo di ab ah, people bi noonu la fa dem voilà dañu seetlu aussi lu jëm ci wàllug euh, boroom ñaari tur yi atum 2020 bi euh, fësoon na ci lool loolu ban jàngat nga ci def atum bi tamit gisoon nañu ne ba dañ doon wax sax naan dañ ko fay bëgg a daganal tey xam nga ne boo nee Sénégal xam ne ne 95 pour cent des musulmans te loolu l'islam dàq na ko kon nag xam nga ne nekkul loo xamante ne nii euh, lu ñu war a daganal la fii ci suñum réew mhm. nekkoon na daal loo xamante ne nii rek doy na waar ba ci li nga xamante ni moo di lomotif yi gis nañ ko fi li nga xamante ni dañuy def ay vidéo di génn seeni cër ak yu ni mel te loolu nemmeekuñ ko di ko gis tamit ci Sénégal te bokk na ci tamit série yi mhm. série yi nga xamante ni waa Jamra mhm. ñu ngi leen di nuyu au passage ñoom tamit def nañ ci liggéey bu am solo ñi mu mhm, àndal ñu mhm. ciy def liggéey bu am solo ndaxte boo nee Sénégal xam nga ne xale yi dañuy seetaan mag ñi tamit dañuy seetaan mais théâtre bu njëkk mhm. da daan yar mais bu gisee dem ba gis léegi ay propos yu jéggi dayoo boobaakat jar na nag li nga xamante moo di taxaw seetlu Ousseynou voilà gis nañu aussi président Macky Sall euh, bëgg euh, indi ak yoonal ci wàllu internet beeg euh, yenn site internet yi gis nañu ni yenn dérapage yi nga xam ne mi ngi ci am loolu tamit mel na ni am nga ci xalaat boo ci wax dafa nekk loo xamante ni dafa noble te dañ ko commencé nag di yàq pour ñi nga xamante ni defuñu formation yu ni mel des fois mën nga am amour bi mhm. mais da ngay ñëw tamit euh, ñu daal lay teg ci yoon mhm. mais du ki di ne kii dafa rafet rek moo tax ñu jox ko micro mhm. nit da nga war a am expérience li ngay def c'est très na si ñoo xamante dañu naan a siiw dama bëgg a am connaissance naa am connaissance bi mi ngi ci mais tamit expérience bi daf ci jouer bu baax a baax c'est très important man dama ànd ak moom bu baax baax ci li nga xamante ni jël na ko ndaxte le fait que nga jël benn miniature boo xamante ni méngoowul sax ak li nekk ci vidéo bi xam nga ne loolu tamit dafa jéggi dayoo des fois da bëgg ay vue bëgg audience bu bëri tax ngay jël yàq deru ak yu ni mel am na ci site yoo xamante ne nii dañ leen di jël pour ñu yàq deru nit ak yu ni mel xam nga ne loolu moom ça ne se fait pas mm-hmm. nekkul loo xamante ni daal lu rafetal la ba tax rek yenn sàcc yi moom bu ñëwee mm-hmm. ah ñun dañ ciy kontaan bu baax voilà léegi nag dañuy bàyyi yaram yu mu firi xam nga ne 24 euh, actu yi euh, depuis internet yi ba ñu ko toppeeg léegi Euh, mu concocté leen programme bu am solo am na lu bëri lu nga xam ne itam euh, ñi ngi koy xaarandi mel na ni dina yëngal gësam comme ni ko xale yi ah, waxee. <laughs> ah bon 2021 bi gars <laughs> ak ay programme yu bees tax ay émissions yu saf saf. équipe bu dynamique moo nekk fii. bi moromu doo daan de. ay dañuy laajte. xale yi dañoo <laughs> xaaral rek buñ leen ko waxee fi nekk dañuy xam. ne dañuy copier mais gis nañ ni suñu programme yu bëri léegi quelques nañu ko léegi. <laughs> dootuñ <laughs> léegi nag ñu ñëw ci euh, ñi nga xam ne moo ñu gunge tey euh, ci jotaay bu am solo bi xam nga ne 2020 bi li ñu ci mën a wax bari na lool waaye xam nga ne itam produit yi nga xam ne moom la ñu tuddee super life li nga ñu ci mën a wax tamit bari na lool. Ah, màgget xanaa moom da koy jël rek sa life daal di super. super life ak ah, na mu tudd daal méngoo naa ak yéen xoolal ma bile produit yi nga xam ne Malaisie la jógee Sénégal mhm. jàngoro yi ñuy jànkoonte dafa bëri mhm. ndeysaan suñu mag ñi wératuñu billaay tension yi bari na loolu lépp tamit li ñuy lekk da ciy joué waale waaye produit bi boo ko jëlee mu mel ni am na lu bëri lu muy def ci sa yaram. boo bëggee sa live super daal il faut nga ñëw ci super live bi. Mm-hmm. te noonu noonu la baaxee nag Ousseynou. bëri na ay ingrédients gisoo ko boo xoolee rek ay fruits rek ñoo nekk si biir. Mm-hmm. te xam nga ne fruits yi dafa baax ci suñu suñu consommation. mais dañ ma ci dee benn affaire bu doy waar ne ma euh, même nit ki bu feebaroon ba sonn bu naanee super live rek. lépp saafaraw. wax tur ba live sa live daal di super. waaw mais lii fan lañ ko mën a amee fii parce que man vraiment produit bi ak ni ma koy gisee nii ak nii mu mel nii vraiment bëgg naa Sénégal yi découvrir super life. maa emballage bi sax dafa rafet. képp koo xamante ne bëgg ngaa xam super life. ci super life ak la muy faj. 24 hmm. actu rek nga koy maam du laajte super life ak. déedéet moom lay jël. affaire du laajte super life boo ko jëlee muy gën a nekk xale. mais mais dafa mel ni boo koy jël tamit sa teint bi da ciy joué waale aussi. ah da ngay xoolal xoolal yëpp ay produits la yoo xam ne ay dafa dafa mhm. lépp dafa naturel xam nga ne yii gàncax la. maanaam amul benn effet secondaire. kon léegi lan xam nga lan moo ci gën a neex. mooy yow xam boo doon jënd tey jii dañ ne la na jënd fruit yu bëri. Mhm. amoo njëgam lépp ñu boole la ko defal la ko ci. ba pare muy faj ba pare muy faj. te xale yi naan waa lii neexul. <laughs> kon mu nekkoon super live produit bi nga xam ne tey moom moo ñu gunge ci jotaay bi euh, vraiment mu nekk lu nga xam ne rek moom la ñu tëjee atum 2020 ànd ak moom ubbi atum euh, léegi lan ngay conseillé mu mel ni soxna yi mën nañ ko jëfandikoo góor mën na ko jëfandikoo jigéen mën nga xamante ni tamit mënuñoo ñëw ndaxte 24 actu la nekk mën nañoo woote tamit ci 75 mm. defee rek ñu daal leen koy livrer ba fañ nekk voilà mu nekk lu am solo kon produit baa ngi noonu nga fàttaliwaat numéro téléphone yi nga xam ne euh, ku soxla rek super life mën ngaa dem ngir nga am ko mais aussi mën nañ ko fekk ci 24 2021 lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan 24 actu laata ñuy jeexal jotaay bi. dañuy am mbégte saa su nekk rek di jënd ak ñoom ndaxte ñoom ñoom moom la ñuy ñoom suñuy mbokk internet ndaxte ñoom noonu la ñoom ñooy suñu ñooy tànk ñooy seen i gët tamit foo xamante ne ni lépp loo xam ne bu ñu leen ko indilee leen neex ñoom suñuy mbokk internet ci la ñuy dox ak ñoom mm. danañ ñu xaar nag ci 2021 bi mm. dana tàng dina mel. sa xarit anniversaire am le premier lay doon ami seex boobu <laughs> amee Cheikh la kenn dootu ko laajte fii ci 24 actu mu fi amal nag liggéey bu am solo mm. nekk tamit xale bu yaru mm. ñu di ko ñaanal rek suñu boroom daat koy may borom kër bu baax tam mm. yàgg koo ah, féete borom kër bu baax borom kër bu baax tam <laughs> candidat yi bëri na mais yow candidat yaa ngi fi ga moom day dàqe mais jiilee ngi fi yow tamit jiili daa jongo ma tax. Ah, jiili man de yéene naa ko jiili man may jiili. <laughs> voilà kon ñu ngi koy souhaité bu baax euh, joyeux anniversaire Amy Cheikh di ko ñaanal li nga bëgg yaa xam euh, yàlla na la ko sunu borom euh, defal vraiment soxna maam Fatou Kébé aussi di xaritam voilà donc mu nekk lu solo soxna Maguette noonu la ñuy jaaree itam gërëm mbooleem équipe bi nga xam ne ñoo nekk ci 24actu parce que li ñuy wax seen la ay maillons yi ñoo jàppante donc liggéey bi am na ñu bëri ñu nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ñu ngi leen di sant baax di leen. leen gërëm ku ci mel ni Serigne Cheikh Gueye vraiment vraiment mu mel ni euh, ñu ngi koy sant baax di ko gërëm ci liggéey boom solo bi nga xam ne mi ngi koy amal Serigne euh, mbay Seck aussi waaye Modou Diouf o fogole séeréer euh, simnaanu man na foofu laaj ci mën a yem mooy borom super life moom moom ku bëgg super life ah te bëgg am produit bu bees bi nga xam ne maanaam li neex mooy génn na bees 24 actu rek nga ko mën a amee donc euh, ngeen contacter ko ci numéro yooyu bu ngeen soxlaa rek euh, produit boobu di Super Life soxna Mame Fatou Kébé euh, noonu lañ koy nuyoo soxna Astou ak mboolem ñi nga xam ne rek ñoom ñooy équipe bu 24 Actu Serigne Afé mais man dama bëgg ñu def KFC de tey tey lu ñuy def tey lu ñu def tey loo bëgg loo bëgg ñu reere ba pare sama gars yi ndaxte équipe technique bu dynamique la ñu amee dañuy sonn dañuy dem ak fond di liggéey liggéey bu am solo ñuy kontaan bu baax a baax tamit di ànd ak ñoom hmm. ndaxte boo xoolee ni ñuy liggéey rek da ngay gis ne ñii dañoo am amour ci li ñuy def hmm. ndaxte tey ji ñun bu ñu toogee fii ba mën a wax grâce à ñoom la nag ah, franchement ñu ngi koy jiital ci Cheikh Gueye di ko di ko nuyu bu baax a baax di ko baalu nga xam ne ay homme de l'ombre lañu ci biir tamit hmm. euh, Diouf Modou Diouf moom dama koo sonal dama koo sonal maa ngi koy baalu ak mais dañuy commencé waat <laughs> dañuy commencé ak ak mbay ah. mbay tamit ñu koy sant bu baax a baax maam ci ami Cheikh comme ni ma ko waxee sànq ñun ñëpp ñëpp daal ñun daal ay xale lañu franchement te juboo nañu déggoo nañu ñu ñaan yàlla suñu borom rek mu la fal ñu ca loo bëgg ñu reere tey ah tey de KFC la ñuy laal moom ah. waaw KFC poulet poulet pané poulet pané voilà ñu ngi koy sant baax di ko gërëm euh, soxna màgget bu Bousso mbégteeg bànneex la ñu am ngir bokk ak moom plateau bu mel ni lee euh, ci atum mii nga xam ne rek moom moo di atum 2020 ci njeexte li ñuy dugg atum 2021 comme ni ñu ko waxee woon euh, di ñaan suñu borom yàlla defal ñu ci jàmm ak tawféex atum 2021 daax at yëpp yu ñu fi mas a jaar ñu ngi leen di sant baax sant mboolem équipe technique bi nga xam ne rek ñoo nekkoon ci ginnaaw Serigne Thierno Faye ak Diouf tey moom affe moo réalisé jotaay bi waaye gërëm bu baax Serigne Cheikh Gueye ak Mbaye di leen jox daje incha allah beneen jotaay eh, at mu neex jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.